suñ sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ko mu assasatul wafa'i bi xuququl iman baaxoo defe rek ci weeru xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko te jàpp ne buñ ko as des na ci jariñu des na ci jariñe dellusiwaat nañ tey jii fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yooyu kon bala ñuy jox kàddu gi kin fës yéene dalal tey rek dañuy xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ak lim war a waxtaanee kin fës yéene dalal tey mooy sëriñ alhaaji alhaaji Mbàkke mu sëriñ Moustapha Absa sëriñ alhaaji Mbàkke moomu mu ngi jànge alxuraanul karim ci kër sëñ Sohaybu ginnaaw ba mu jàngee alxuraan balam ci war a xam lépp mu xam ko mu dem ci daara ju mag ju ñépp xam ci jàngale xam-xam muy kër Sëriñ Habib Mbacke foofu la jànge xam-xam bala mu war a xam lépp mu xam xam ko tamit ginnaaw bi bi mu jeexalee njàngum xam-xamam wala bi mu jàngee lu baree bari ci wàllu xam-xam ci la fa jógee dem ci kër Sëriñ Saaliwu Mbacke ci xelkoom ci daari tarbiya yi di saytu foofa lu jëm ci jàngale alxuraan ak xam-xam yor fa daara di fa jàngale alxuraan ak xam-xam di saytu njàngale ma tamit yemul ci loolu tamit ginnaaw bi mu jóge fa ñëw fii ci Touba ci forage bi ci yoon Darou Moukhty yor fa daara di jàngale xam-xam ak alxuraanul karim tamit yemul ci loolu ay gëstoom poussé na ko mu def ay taalif yu baree baree bari yaakaar naa bu ma juumut li mu jote taalif ci ay téere war naa mat fanweeri téere lépp rek ngir laabiire jullit ñi ak baaxe leen li nga xamante ne yàlla xamal na ko mu fas yéene koo xamal jullit ñi bokk na ci téere yooyu mu taalif rek yi ci gën a siiw am na téere bu ñuy wax xaw Xawim nga xamante ne ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yi la ko def am benen beneen nit buñu wax safwatu sir nga xamanteni mi ngi ko def ci jaar jaar Sëriñ touba ak ay jikom ak ay melokanam ak aw doxalinam am benen beneen téere tamit bu mu taalif wax tanbihul mar'a nga xamanteni ye jigen jigen jo xamanteni ab julil la naka la wara doxale fan la wara jaar ba mën am tex tey ak ak yeneen walu bari bare bare bari talif na ci kon kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene waxtaan ñun tey jii lim fas yéene waxtaan nag di lu ñëpp war a teewlu lu ñëpp war a déglu lu ñëpp war a xam muy yéeme gi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul yéeme na ko kon yaakaar naa ne képp ku di murit waxtaan wii war na laa yitteel te war nga koo déglu ak xel kon li def moom mooy dañ koy jox kàddu gi bu fekkente ne waxtaan nañ ba noppi rek képp koo xamante ne am nga laaj. bu aju ci lii mu doon waxtaanee walla boo ko bindee jox ko bàyyi daam jaxate incha allah dis na ci tontu kon li ñuy def moom mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah أعوذ الذات وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لخديمه ما اخترت ورديت له في الدنيا والآخرة عليكم ين mbokki jullit yépp asalaamualeykum yéen mbokki taalibe yépp asalaamualeykum yéen waa daaru muxti yépp ñu ngi nuyu ñépp ci seen tur ak seen sant tey baalu àq ñépp tey baalu àq ñépp dale nuyoo bi nag suñ kilifa gu tedd gi nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ Cheikh Khady yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral aw yaramam ba mu àggaleem mboolem lu mu naal ci liggéeyal ko maam Thierno jàll ci nuyoo bi ci sunu waajur wu tedd wi Sëriñ Moustapha Absa ñu ñaan itam yàlla yàggal ko fi lool te wéral aw yaramam jàll ci nuyoo bi ci Sëriñ Amsatu mu maam Cerno ngi ñaan yàlla yàggal ko fi lool te aw yaramam ak Sëriñ Abbas yal na ko fi yàlla yàggal te aw yaramam ak Sëriñ Basiiru na ko fi yàlla yàggal te wéral aw yaramam ak Sëriñ Xaalid Mam Thierno yal na ko fi yalla yagal ci wér am yaram ni ngi ñaan ci yeru koor wi yalla mu dolli ay yermandem ak ay xéewalam mm, sottil ñu ko ca maam Thierno moomee xam ne yàlla yalla ko fi yalla fekke ay mbeg ak ay teranga yoo xamne ne ko faa mukk ci dale ko ci bisu tay bi ba saadi taxaw ba muy tabba aljana yalla yalla yeram yërëm ñepp yal na yàlla dolli ak ngëm ñépp yal na yàlla dolli pastéef murid yépp loole Sëriñ Tuubaa ñaanoon ne yaa maalikal mulki yaa man jàll xam xaw bi irham jami'al wara yaa haadiyan dala na ko yàlla may ñépp yal na yàlla aar ñépp yal yàlla saytu ñépp ñu yërëdi yal neen yàlla faj ñi nga xamee ne réer nañ yal neen yàlla gindi ñi xamut yal na yàlla xamal ñi doon agut ay mag yal na yàlla def ay mag ñi nga xamee ne ay mag lañ itam yal na yàlla dolli ak njub te saytu leen te yokk seen wér mboolem góor yeeg jigéen ñi yal leen yàlla dolli dimbal te te dugal leen ci biir ndimbal loolee Sëriñ Tuubaa ne nasaran xasiisan yasmalul kibaara mahas si xaari rut lawu man baara ndimbal loo xam ne day daj te mat kàpp ba du baye kenn ndax weer yi ñu nekk kat day weru ñaan sama du khat awzal khat awsal ta li fi Ramadan maarumtu min ka khablahu bi fayadan nim daan sàkku ci yàlla du ci bari ci yoru ko la ko sun borom di andil najaytu najaytu naaje naajeytu rabbi bi sahri Ramadan al amani wal muna wal fayadaan wer la wo xamne bu ñëwee loo ci ñaan yàlla da koy may kon nag yàlla nañ ci yàlla def ñuy ay jullit ñu wér ak jullit yàlla nañ ci yàlla def ñuy rafetal yàlla nañ ci yàlla def ñuy ay taalibe yu Sëriñ Tuubaa mboolem fi teew tey déglu yàlla leen yàlla def ak topp may may ak topp ak gindiku te tàmbalee sunu waxtaan ci rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi ñaan mbooleem lu ñu fi wax suñu borom def ko ay leer te defal ñu ko muy liggéeyu Serigne Touba lépp loo xam ne itam juum nañ ci wala ñu waxee ko nu bokk tëg nañ ko war a waxee loole ñu ngi koy tuub te di ko jéggalu ndax wax moom li tax mu jafe mooy yi koy déglu ko ci nekk ak dégg-déggu boppam ak gis-gisu boppam waaye nag liñ ci fas te ko ci rek mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne dëgg ngeen ko ci mu wuuteeg noona ñu ngi leen koy jégglu tey ñaan ngeen baal ñu ko lii ñuy nag wax dëgg lu yomb ci ñoon la bu ñu ci yàlla taw fee xale ndax yéemig Sëriñ Tuubaa moom kuñ ci waxtaanloo wax dëgg fekkee am murid nga war nga caa xam lu bare bare ndax Sëriñ Tuubaa mu léppam kiimaan la noonu ko kulliyati mu'jizatun wilaaya kaw nii koo xam ne am nga ak wilaaya bi laa kiimaanam googee nag ak nekk gam àgg na ci ba ci léppam daal ci gàttal waxam ak pas-pasam ak ay melokaanam ak lépp dafa yéeme dafa am soxna suñuy wax soxna Awa jóg moo ko bi moom mi ngi dund ba léegi sax mm, mm, nee na ma suñ bi mas na koy tàngalal attaaya suñ mag waaye nee na ma moom day boo gisee ni muy def da xam ni kii mi ngi def waaye ca dëgg-dëgg daal mel na ni defu mais am na keneen kuy kuy def ndax ni muy jëlee ni muy tegee ni muy yëngutoo daal mel na ne wuute na na nga xam ne wuute naa nit ñi lool koogee nag kon léppam kiimaan la kon nag bu ñuy bëgg a waxtaanee ay kiimaanam ak akuk yéemeem danañ jëm ci anam yu bare bare bu neexee yàlla ndax xëy na waxtu yi danañu ko may bu ñu suñu borom defal lee tawfeex danañu waxtaane ci ay xarbaaxam ca moom lépp comme xar baax la ak te xasida yi itam ci xar baax yi Sëriñ Tuubaa bokk ndax wax na ne maanaam ni nga xamee ni yonte bi dadaa feeñal ay sa ci jamonoom nga xam ne dañu wax loo na mbëtt xarweer yi ak yeneen ak yeneen doxloo ay garab noonee la xasidaam yi itam waroon a nekk ak muxjisa ca jamonoom boobee waaye nag xëy na xam bu mu xam ne jamono laajagu ko moo tax mu bàyyi ko ba ci mujjantalu jamono mu def ko muhjisa feeñale ko ci moom moo tax mu wax ni ay mbindam bokk na sax ci muhjisa yonante bi yu gën a mag muhjisa yonante bi yu gën a mag te ñu yeexe koo indi te jaarale ko ci moom nee na moom mbindam mi ci la su ko defee nag ñu delluwaat ci bayit woowu ñu waxoon léegi mooy lu mat a xel la lim ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xayril na aaya ñu képp koo xam ne am na ak wilaaya rek xam na ne man mii kat kii maanum yenante bi laa loolu ciy déggee képp kuy wedd Sëriñ wala mu di ko rek kon amutug wilaaya loolu lañ ci daal di déggee kon ndax sëriñ bu mag bi dafa wutu yonent bi ci saahir ak baatin nee na ni nga xamee ne kenn mënuma xàmmee yonente bi sallallahu taala alayhi wa ci àdduna ci dara yowmal xiyaamati kenn duma mën a xàmmee moom ci dara ndax bu yonente bi dikkee ci buntu àjjana ba fëgg malaaka ma ne ko kooku kan la danaa ko man la Muhammad mu tijji dugg mu tëj nis tuuti ma ak si fëgg mu ne ma kooku kan la ma ne ko man la Muhammad mu tijji ma dugg mu tëj noonu nga xam ne ka yor àjjana mënuma xàmmee yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ci dara kenn duma mën a xàmmeek moom ci dara kon noonu la yonente bi sëñ mag bi doon la yonente bi sallallahu alayhi nekk ak kiimaanam yitam Sëriñ Tuubaa nee na xaadimu rasul daraja la joo xam ne sunu borom da koo liggéey ba ko ci buntu aras ne ku ma liggéeyee lii danaa la ko añe bi ma liggéeyee la bam takkal ma ko ma ne ko dama bëggoon nga jaaraleel ma ko ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mu ne ma loo ji jublu ma ne ko damaa xam ne loo mayub jaam te jaarewoo ko ci sallallahu taala alayhi bi alihi wa juum boo nangu bu ëllëgee saa boroom daal di may delloo ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama may lëggeel yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ba mu gërëm ma ne ma maa tax ñu bind àjjana ak safara defal nga ma lu ma ab jaam mës sa defal danaa lay yoolal yoo jaam danaa la may lu ma mës sa may kenn ma ne ko loolu lu mu mu ne ma may naa la àjjana ma ne ko may nga ma àjjana mu ne ma lew na la ni jàngoro jàngoroy bañ mu ne ma kon jox naa ma ne ko jox naa la ko àddiya mu ne ma jox nga ko ku ko mat a jox te nangul nañ la ko waaye waxtaan nekk na foofu ndax sunu borom lu mu dogal wéy na te loolu dogalees na ko waaye ginnaaw def nga ko àddiya àddiya de des na la ko dencal ba bisub jariñu ba sa coobara rek ku la neex rek muy dugg kon kooku dara darajaam ci ak nam dementi bi lu rëy rëy la noonu itam bokk na ci li gën a yéeme ci sëriñ mag mi itam muy ay loo xam ne ci kiimaanim yi la muy lëggéeyal ko ndax jëmmi lëggéeyal ko moom suñ borom ci jëmmam da ko teg fu kawe kawe kawe ba tax lépp loo xam ne jëmale dañ ko ci moom mu yéene mu di wax mu di jëf sunu borom dajee fay kooka lu yéeme loo xam ne xëy na du ko fay ci yeneen jëf ak yeneen wax ak yeneen pas-pas loolu itam bokk na ci yéemeeg Serigne tubaa nga xam ne loolu ñu bari ci wala mën nga ne ci nit yàlla yi amuñu ko li wax ne wahab wahab li man xadamani ihsaana malakanaw mastooranaw insaana ne képp ku may liggéeyal na ko may ak rafetal moo xam am malaaka la wala kuñ gisul la wala ak nit la ne suñu borom moom Sëriñ Tuubaa daana wax ne suñu borom du mbindeef bay am ay jikko waaye am na ay melo bokk na ca melo yooyee naqaree liggéeyal ak neexa liggéeyal ndax boo jubloo ci liggéeyal ko day mel ne nekkoo ci dara du la ne lii laa lay faye du la ne fii laa lay faye du la ne waxtu sàngam laa lay fay melaw neexal liggéeyal yi mooy saa su jubloo ci fay la du seet yaa ngi jëf du seet jëfoo du seet yaa ngi fi du seet nekkoo fi day fay rek daldi ne yéen ñii seeni baay ñoo ko doon liggéeyal mu leen di fay bañ fi nekkatul mu leen di fay bu ngeen fi nekkul muy fay seeni doom Sëriñ Tuubaa mas naa togg laaxub lay duur def ci daqaar ak suukar du mooyu mos sa tuuti jox ko ña fa toogoon ne leen Sayyiduna Jibril dafay ñëw ne ku la liggéeyal jariñu ma bëgg a liggéeyal sama bopp Sëriñ Tuubaa bi nekkee Jolof maam Cheikh mas na ko fa seet muy def saa su ngoon jotee ñu war aw fas dem seeti tool ba ñuy wax bustaanul xaarifina ba benn bis ñu dem bayam ci ñetti waxambaane kenn ka nekk ci kaw ak sump di gor ñaar ña nekk fi suuf di felet bi sëriñ bi tolloog ñoom taxaw tuuti daldi dem waaye waxul dara bi mu delsee daldi woo maam Seex Anta ne ko dama bëggoon a waxtaan ak yow ca liggéeyal ma ne ko benn murit bu xëy liggéeyal ma ngir yàlla ba ngoon jot liggéeyam boobee peese nañ ko ak liggéeyu boroom xam-xam bu liggéeyal yàlla juróom-ñaar fukki at te jëngul liggéeyu murit ba wat ko bu leen sikki ne ma moo kawe gépp wilaaya guddee woote la dale ca sun maam aadama ba sun jamono liggéeyal ma yemu feek genn jaamu yàlla te bala ngeen a xam li ma wax yowmal xiyaamati taxaw kon noonu la suñ bi yéeme muy kiimaan boo xam ne ndax kiimaan buñ ko waxee mooy loo xam ne day daanaka day kawe xel nga xam daal kuy yàlla taw feexal rek moo koy mën a gëm kon nag suñ tubaa lépp moo yéeme kon lool lenn la ci kiimaan yi sëriñ bu mag bi muy kiimaani eh, jëfal ko dara ak waxal ko dara ak yéene ko dara ne àgg ne ba ci ki nga xam ne day fas lu baax jëme ko ci man sax waxtu wu ne day dolli ko wax wax di xawaayi jël si na daamu fi xidmati yi waxub dahum maaraamu ñi nga xam ne dañuy sax ci ndëggeel ma te moom ak ñaanam mooy lu nangu ba noppi ndax wax na ne moom bala mooy ñaan dara suñ boroom daf koy may ba noppi nekk ko ne ko ñaanaan ma ko kon ñuy ñaan lépp lu am ba noppi la xasida yi nag li tax bokk ci gën a yéeme ci mbindum Sëriñ Tuubaa mooy pas-pas bi nga xamee ne amoon na ko ci bind gi ñu koy bind ndax moom bu ñu seetee jamono lool rek moo nekkoon ab liggéeyam daa def leneen sax ak di jëm ci yeneen muy jàngale yenn waaye ci mujjantal gi moom mel na ne itteem jëpp ci liggéeyal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tagg ko ak julli ci moom la ko jëme woon muy xasidaam yi ni salaatu sitta bi madhi sitta taatihi patta mahati saay moom bu juróom benn weer yi matee mu dëgmal yeneen juróom benn weer nga xam ne dundam lépp ci yonent bi sallallahu alayhi la ko jëme loo tax nag suñu borom yëkkati liggéeyam boobu muy mbind mi ndax àgg na ci ni iza katabtu tasa arsul baaxi wa sabaxa malaayiku tibaax mu ne bind aras day yëngu malaaka yëpp di sàmbal nee na itam xaasal naxiinu min kitaabati yadi wa xuslu minhu bel munilil afyali nee na saytaane day muslu sama mbind waaye muslu li muy muslu sama mbind lépp teewut ma it maa ngi musluwaat moom nee bu bindee itam saytaane day daw ngir ragal mbind mi kon nag lu màgge noonu toll noonu ci ñun war na te nekk ndax mooy karaamam gi gën a màgg ndax dañu karaamati xattu yët yi fii xidmatil mu ay yët yi sama karaama mooy bind mi ñuy bind jëme ko ci yant bi sallallahu loolu nag ndegem karaama la kon te doon karaam ak sëñ Tuubaa gi gën a màgg ci karaamam yi ndax mooy ki fi sax te dootu fi jóge mukk war na ñu waxtaan ci tuuti itam ginnaaw biñ xamlee ne ci yéemeeg sëriñ Tuubaa la bokk ndax e, di doy ak yéeme rek may def am mbind noo xam ne day mën a yëngal nit aka soppi doomu aadama ak di ko jubal ndax wax na ne uh, abda bi taalifi ilahi al huda wa kullu man raama hudahu bi hada suñ borom def na ak njub ci sama mbind mi te képp koo xam ne sàkku na ak njub ci man laa suñ borom di gindee xaside yi nag dañoo nekk ay xaaj yu baree baree bari ndax am na ci yoo xam ne sëriñ bu mag bi sax danaa tere ku leen jàng am na ci xasida yi yoo xam ne itam sëriñ bu mag bi dadaa dadaa digle ñu di ko jàng am na yoo xam ne ci géej gi la leen bind am na yoo xam ne ba mu ci géej gi la leen bind am na yoo xam ne bi mu jógee ci géej gi la leen bind itam yooyu yëpp yu ci ne am na aw yoon ak nuñ ko war di awe ak yuñ ci war ak nuñ ko war di jëfandikoo itam waaw ndax Sëriñ Tuubaa mi ngi tàmbulee liggéeyal yant bi sallallahu taala alayhi wa ci mbind ci at mi ñuy wax assasine assasine ah, mooy bi nga xamee ne sëñ Mamour Anta Sali làqu na bañ tegaat ci meneen at loolu muy assasine at moom ci la tàmbulee bind mbind yoo xam ne daciy fas liggéeyal yant bi sallallahu taala alayhi wa sallam nag la ko tàmbulee foofee nim demee ci géej gi mbind yooyee dafa wax ni moom nanguwuñ ci dara bi nga xamee ni itam mi ci biir géej gi mbind yooyu nga xam ne mi ko fi daa bind nee na yooya lim ci jublu mooy jihaatanteeg tubaab yi ak yëkkati baatub suñu borom ba tax na moom digalut kenn mu di ko jàng xasida yi nga xamee lu ñibbisee bañ teg ci ñaari at wala benn at ak genn wàll mooy bi nekkee gànnaar mu tàmbalee xaama pak sasin ba niñ ko mu gise nee na foofu ku bëgg njariñ moo xam njariñul àdduna wala lu ëllëg na ngay jàng ci xasida yooyu te di ko ci fas mooy xasida yi tàmbalee xaama bak ba nim làqoo waaye teewut tam ci biir xasida yooyu nga xam ne ci géej gi la ko defee woon dana ci am daana ci am yoo xam ne ci géej gi la ko defee woon ba noppi wëlbatiku di diglewaat ñu di ko jàng bokk ni ci xasida yooyu lu mel ne walla xadd karam naa moom ci géej gi la ko waaye woon waaye teewut mel ne daanañ ko jàng ci kanamam mu di ko dégg te xëy na ci ndigalam lay doon ak lu mel ne yaasal bu saaraati ak yaa yaa xayra day fin ata bil bisri wal maddi yooyu yëpp ci géej gi la leen waaye woon waaye teewut bi mu ñëwee itam daanañ ko jàng ci kanam mu di ko dégg te daawu ci wax dara wala sax moom maa ko daa dégle xasida yi nga xamee ne moom la def ci ginnaawu géej gi yooyu ku ci gën a jege ak làqu sëñ bi rek moo ci gën a yéeme ndax sëñ bi ci niñ koy waxee ci mbindam yu bare bare nim daa doxe ci suñu borom waxtu wu ne akum jegeen yàlla day yokk nga xam ne boo booy jàng xasida sax da nga ko ci seetlu ndax da gis mu ne mu bind xasida ba mu jeex mu def ci tërjumaan de daal ne xasida jii de mbooleem xasida yi ko jiitu woon moo leen kawe bu bindaatee geneen daan ne xasida yi moo kawe mbooleem luñ masa way jiitu ko kon noonu la ay mbiram daa toxtaloo di wéy kon noonu lañ koy xamee te xam ne gu gën a jege ak nekkam ak ñu koy gis ci àdduna rek googa mooy gën a bari mboot ñu ko seddee ba ci xasida ak jaawatu gi nga xam ne wax nañ ne bis mas naa woo suñ mut lamin moom ñëw mu am lu mu koy wax fekk am ku fa toog wax nañ ne suñ ko may ma mu jóg may ko ne ko Mouhamadou Lamine de am na ci jëmm yoo xam ne barab buñ nekk xikmatu dafa dul wàcc daal di génn xasida googu muy xasida jaawartu xamal ko ci loolu ne ko képp ko mokkal wala ñu suunaale ko ko da nga laaj ci bàmmeel kon nag loolu itam fii ne dara gënu koo kiimaane ndax xasida jaawartu fii ne buñ ko tàmbalee woon ca bopp ba ba jëm mujjantal ga doo sax fu mu ci bàmmeel walla mu tudd bàmmeel bàmmeel nekku ci muslu ci bàmmeel tudd ko te ay yëpp boo seetee wax yu jëm ci moom la ak ay mbiri boppam te teewul mu wax ci lool loolu ci la ñuy xamee ne kon li muy léppam ak muhaddisa la ndax dafa am ku ñuy wax sëñ bànji njaay sëñ bi da ko masa wan ay mbind mu di ko xool ba ci yàgg mu agsi ci am am baat boo xam ne dafa mel ne dafa dafa dafa du ko mënta firi daal muy xool ba ci yàgg mu ne ko suñ mu ne ko lii de xanaa gan la suñ bi ne ko dafa daa lox daa loxaa ci yow mu ne ko ah waaw mu de mu ne ko boo masaa àgg ci baat bu loxo fi yow foo ko daa seete ne ko xanaa ci mun ji dëkk xaamul sa ne ko man de sama loxo moom kenn du ko seete ci lawhul mahfuz lañ koy seet ñëw mu daal téen di xool ci kaw ñu ko bismillah looy def ñu ko ah daa yaakaar na ci kaw lay féete ne ko de yàlla ñuy wax yàlla ñuy tiim yéene lawhul mahfuz koy kuñ koy xanaa kañ koy wan fu fu njaam jëm rek fu kanamam jëm rek mën na koo gis noonu loolu tegtal la ci ci ndax nee daana wax ne léeg-léeg ma gis waaye fu soree sore ci sama ñoñ te du ma xam lu ko fa yóbbu waaye bu ma gëstu rek damay daal di xam ne sama xasida yi ñoo ko yóbbu daana wax ne itam ahmadu yan képp ku koy jàng na moytoo tefli ci genn wet ndax wet gu mu tafli ci kaw yante bi sallallahu alayhi wasallam la tafli yante bi tefli daa wax ne itam sama xasi bu leen sikk ne sama xasida yi ñoo ma gën a gaaw loolu am na am na jàngkat boo xam ne da doon jàng ci jamono suñu mag bi moom it am nu muy def baatam di ko neexal noonu suñ bi ne ko loo ci jublu mu ne ko neexal mu ne ko xorom naa ko suukar naa ko ah, ah, ah. xorom naa ko naa ko waaw mu ne ko xorom naa ko suukar naa ko kon suñ mag bi xasidaam yi bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a yéeme te yéeme gi loolu ñu ci waxoon léegi ma ah, jàng ko rek mu la soppi soppi ko loolu bokk na ci ndax dama am koo xam ne dama ko mos a laaj ne ko li sëñ bi wax ne tuwasilu aqlaam yi ilallaahi xaabidan bilaa xalwatin wallaahu abqa kama axnaa àggale waa waa bayit des kitaabati faaxat suyooxa tarbiya wa kulla sege wa kulla xayrin wa suyooxa tarxiya yow noo koy nu mu nu mu kawee bi nu mu mën a kawee sëriñu tarbiya moom mu nakk nakkal ma ne ko man de li ma jàpp mooy sëriñu tarbiya moom faaw boo nekk moom dalay digal di tere ngay def lim lay digal mu lay mu lay tere ngay bàyyi lim lay tere xasida yi nag ñoom boo leen dee jàng duñ la digal duñ la tere dañuy mel ne duñuy génne melo yi bon ci yow di dugal melo yi baax ci yow ba keroog ngay jàkk day mel ni kon kawe gi mu kawe sëriñu tarbiya noonu demee bokk na ci li ji a yéeme itam moom nee na mbuutum alxuraan ak tawreet ak injiil ak saboor da ko def ci biir te mbóon ma la wax ne itam moom la def ci biir ca loolu ñiy gëstu ay bindam wala ñu koy faral di setantal bu ko waxtoon it danga dem ba seetlu ne loolu la def ndax da koy junj fu bare bare te it bis mas nañoo jàng faasat xilaamil yawma bil xayrayni insa man yakfini yad dayrayni mu ne faasat nu ngeen koy firee ñu wax ko ne ko faasat de mooy texe na mu ne faa gi mooy forxaan alif gi mooy injil raasa yin bi mooy saboo taagi mooy tawret naan ñeent mbooti ñeent téere yooyu la def ci xelaam yi mooy am bindam muy kiimaan goo xam ne kon moom yàlla moo ñu ci taw feexal rek ñu nangu ko te nekkul lu ñuy mën a làmb daj ko walla ñu di ko xool gis ko ay lu ñuy dund yëg ko lay doon rek bu defee mas nañoo jàng muxaddamaan itam ma agsi ci yabu sumtidaahi jumlatan xaasaha nabi minan nafi wa huwa al bahru sul jalbi wan nafi mu ne njariñul yonente bi de bu fekkoon fukki xaaj la benn ba la yahud yi ak nasaraan yi yor di ko pasar pasare juróom-ñeenti xaaj yépp dafa nekk ca kaw wagg yonente bi te dara mënu ko faa jële luut sama mbind bi daane buñ koy jàng ñu ngi melni ne gu ñor nga xamni ne buñ buñ mu wad buñu mu wad mag mu am kàttan ñëw jàpp ca engagé ya di gës mais bu ñu jàng xasidaam yi non lay wàccee ñar ñun bi mas ñu jang itam ba agsi ci ko su ko tasqini bi haasa busaratin wali xutta faydan ahjalal bahra wal fulkaa mu ne ko su du ngeen koy firee ñu wax ko ne say kaas mu ne déedéet naan ne suñ borom de li njëkk a bind mooy baxarul anwaar mooy géejug leer ba nga ko bindee ba noppi nag dafa fop lawxul maxfuus ne ko ca dëw ba nga ko génnee mu toq ñeenti toq ne ñeenti toq yooyu ci la bind li am lépp daal di wax yonente bi ne ko yow xëjoo ci ñeenti toq yi da ngay sëgg ci géej gi nee na ba mu ci sëggee ba mu siggee la ca jógee ak la ca des dafa mel ne puso buñ sëpp ci am ndox seppi eh, yante bi daat koy geestu ne ko sëggal nee na moom ba mu sëggee ba mu siggee dafa mel ne dequ noor loolu di loolu lépp daal kon ay ak yéemam la nga xam ne moom léppam kiimaan la léppam itam xarmaax la tale ko ci ay waxam bam kenee àdduna ndax moom mësta jëf lenn lu kenn mën daanaka waxtu wu ne daal mu daal noonu mu ko waxee ci yenn ne bidaayatul maahi nihaayatul xiyaar faddaloo al ixtiyaar fi nga xam ne fa la yante bi sallallahu alayhi wa sallam baax la yante bi sallallahu mooy bi mu ñëwee noonu wax na ne xeeti mbind yi nga xam ne jëm ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sax lépp ko tax a bàyyi mooy day def saa su jëlee xalimaam jëmale ko ci lenn lu bokkut ak bi moom bu foobee rek yonent bi day mooñ jàpp ne ci moom la ko jëmale ba tax mu bàyyi lépp loo xam ne lu jëmati ci yonent bi xaaj ak dundam ñaari xaaj nga at mi ñaari xaaj la koy xaaj bu taggee yonent bi sallallahu alayhi ci fukki weer yi ak benn yeneen fukki weer yi ak benn itam mu ci julli ci moom ndax bu yàggul rek dafa am ko doon waxtaan ma ne ko suñ borom man de dama am ñaari aw bayit akum aaya boo xam ne dama ko seetlu ndax dama seetlu ne suñu borom dafa wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ak doona makatibil xibaadatu maha taxarrubi kullal masaaya jamaa nee na binduma nit ak jinne loolu ñu jaamu ma nga ñëw ci jaamu yàlla yooyu moom nga ñëw mu ne la mboolem jaamu yàlla yi sama mbind moo leen féete kaw kon loolu ak soññ la ci ñoon tey yàlla nañ ci yàlla dollee taw feexal te dolli ñu ci dimbale ndax dafa mel ni daal jaamu yàlla mujj jamono la su ko defee nag Serigne Touba moom buñ ko dee topp noonu xëy na léeg-léeg buñ ndegem bu waxtaan nañ tuuti ci kii itam ci ci mbindam dañuy delluwaat ñëw tuuti ci ay mayam itam nga xam lépp kiimaan la ndax wax na ne ilaya xaadallaahu maalam yakuni wala yakunu abadan di mumkin nee na suñ may na ma loo xam ne mus kenn mësu ko am te kenn dootu ko am itam Sëriñ Tuubaa nee na ku dul man ci diggante boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam fa nga summi ab liggéey fa nga wàcce ab liggéey man nag ci diggante yonent bi sallallahu taala alayhi ak yàlla falaa summi ab liggéey bi ma summi ko ab liggéey la yàlla suñ borom tegtal yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa ma tàmbali di ko liggéeyal la ma doon liggéeyal la ma la ma ko doon liggéeyal moom yonte bi mooy la nga xam ne bëggoon na ko ci moom mm, suñu borom bëggoon na ko ci te kenn mësu koo caa defal ba mujj mu ne ma yaa ma gënal sama bopp li màndargaam loolee mooy àgg na ma ak moom ci tagg ko foofu ku fa àggoon ak màggatum law bi mu amul lu dul menn mbaam mu muy def ay gëxam daa la ko jox waaw waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam li muy baax baax kàttan ak nammeel moomu ko sunu borom a moom mu daal di may tegtal sunu borom foofee la fa doon liggéey mooy la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na ko ci moom moom sunu borom te kenn mësu koo caa defal ba mujj sunu borom ne ma li ma bind yaa ci gën a jege jox naa la alxuraan loolu waxtaanu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa itam mas naa tomb ñetti tomb teg loxoom ci tomb bi féete wetum ndeyjoor ne yonente baa ngi nii maa ngi nii daldi rëdd aw rëdd mu jóge ci tomb bu njëkk bi jëm ci bu ñaareel bi ne sunu boroom xamle ne yonente bii sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mooy aw yoonam te biral na ko te te te biral na ko te saxal na ko waaye loolee fangul mu sàkkal ma aw yoon daldi rëdd aw rëdd bu jóge ci tomb bu njëkk bi ba ci tomb bu bopp ñetteel bi sama digg ak moom ma benn rëdd yi ci la wax ne sama digg ak moom moom la dox ma xam ma xam waaye ma yëg ne teggi na gën lépp ma daldi jaare ci yonente bi ngën gi mi def sallallahu taala alayhi bi alihi wa bi ma àggee ci moom xamalu ko xamaluma ko xamoon naa ku ñuy wax booru ak yoon wu jëm ci moom waxuma ko lu ca bokk dama nekk ak moom rekk ca na ma war a nekkee moom ci teral ak màgg la ba mu ngëpp sama loxo yóbbu ci suñu borom mi nga xam ne moom moom mbinde bi ne ko mboolem wàllu yi fi doon liggéey seenu pay xam naa ko waaye ci ak payam yow rek yaa ko xam sunu borom ne ko dellul fa nga nekkoon ca la nga nekkoon bàyyi kook man sëriñ bi mu waxee lii daa di far tomb yooyee daa di tombaat ñaari tomb yu mag wërale ko aw rëdd daa di ne sunu borom ne ma yaa ngi nii maa ngi nii kaay ñu bokk sama nguur gi biir bokk gi it danaa la ci may geneen jagle ana luy loola mooy lu may bëgg a def ci këruk àdduna dana la ko yëgal ba la neexee ma def ko ba la neexee ma bakko yow nag lépp luy sa coobare soxlawul nga ma ciy wax dara bam la soobee la ma soob sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu nee na rabbul xaalamina seet na jamihal xaalamina fekk maa ci gën a sopp xayral xaalamina mu ne ma cas teg ci loxo xayral xaalamina ne ko may naa la kii eh, suñ bi waxee loolu daa daal di ree ne man maw xoob laa kuñ may laa moom yonte bi sallallahu alayhi wasallam bi ma ko bi ma ko ko suñ borom woo ma ba ma ñëw mu ne ma yow mi ma gën a sopp ci mboolem mbindeef yi te rabbul alamina moo ma ko wax kaay ma fopp li ma gënoon a sopp ci ñu ma may may la ko ma ne ko liñ la may lu ci gën mu ne ma làmmiñu xarab ma sant yàlla sant ko ne ko làmmiñu xarab daa te way te ma gis ci sa téere bi wama allamnaahu si'ra wama yanbaghi lahu ma bëgg nga rafaatale ma ma mu ne ma rafaatale naawe ko ma sant yàlla sant ko ne ko mayaa li ma ci boo doon way loo way ma way ko mu ne ma mayaale naale ko ma sant yàlla sant ko waaye ma xam ne way ku ko dul bind nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téere bi wala taxutoo bie bind ko ma ne ko mayaali ma ma bind mu ne ma mayaale naale ko ma ne ko mayaale ma boo doon bind boo doon bind loo bind ma bind ko mu ne ma mayaale naa la ko daldi ree ne xalima gi bu leen sikki ne saaxir si laa ŋàbb waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ŋàbb ci baatin bi kon bindam yépp noonu la daa demee bi sallallahu alayhi wa moo ko binduloo daal kon muy muxjisa ci muxjisaam yi léegi rek lañ ko mujj waxtaan ci lu bay ñu ne eh, xaasa rasulullahi xaasa nabiyullahi maa laa yaxlamu illa lasi lahu lahu lahu wa xalam loolu ñu ko waxee yonent bi dafa ñëw ci moom ne ko bay danga koy soppi te waxe te binde ko nii muy xaasa rasulullahi maalam yaxlami illal la si xaatabahu bi kalimi loolu li muy tegtal ne mooy yant bi itte woon ak mbindam te li muy def lépp ci ndigalul yant bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi ci la koy def mbind mi ba tey naka noonu wax nañ loolu ñu misaal ne suñ mag saa suñ bind ba agse ci loo xam ne suñ borom daf koo may te digalu ko mu wax ko itam loola da koy jël léegi ba ak ak si woon ca da ko xam dañ koo tënk nga xam ne araf wu jël da war a nekk aw way bu agsee ci baat boo xam ne wala loo xam ne da war a wax nga xam ne may nañ ko ko waaye ëggut ca jamono jam ko war a waxe wala yooyu yëpp da koy jël ndax misaal bi rek bi nga xamee ne sëñ bi nekk ni ci géej bi ba nga xamee ne tubaab yi gisoon nañ ahlu badar ci moom loolee dañoo waxante woon ak moom ne ko doo ko wax kenn doo ko nettali kenn daal suñ bi leen li fekk nettaliwu leen ko de du ma ko nettali bi nga xamee ne jóge na jigéen gi ba ñëw njaareem bis dafa am ci taalibe yi ma fàtte tur bi saar la sant yaakaar naa jóge jóge foo Gabon ñëw di waxtaan ak suñ ba nettali ko loolu ne ko ak ab tubaab moo ko nettali luy tegtal ne ah, ñoom gisoon nañu ahlu badar ci moom suñ tubaab ne ko ñoo la ko wax ne mu ne ko waaw mu daal di yónnee xasida gi ñu tënkee eh, inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan mu tàmbali ayasa min illaahu inda jiwal xam ne fi nag bi mu koy way bi mu agsee ci yaag eh, inna ibaadi yaagoo gu ci xëcc ibaadi ak laamug laysa xëy na da ko daggoon ci way bi nga xamee ne maanaam net ne kooku net na lool di sëñ bi yónnee xasida googu ñu andi ko mu bind yasara mën a ladaa liibarooli maa xaada li maa xaaba an kulli waj man xaada li maa xaaba an kulli waj lii xaada ahla badrin usooda man sax waasiya wal xasoda daal di doo ko xam ne ne kon loolu yooyu yëpp dana am ci ay mbindam kon ndax nee na aktubu naaxilan min allawxi wa min xalami wa fi hurufi lam amin ci li may bind lépp ci lawxul mahfuz day jóge ba tey ci waaw ci yéemeeg ak nekk am kiimaan Sëriñ Tuubaa nee na kun gi tax yàlla yi buur mi ngi ci saa tengali kun gi nga xam ne moo tax suñu borom di buur nee na moom su borom jox na ko moom loolu day feeñaat ci mbir mu yaquudu bi kun fa yaquudu maa urid walaysa yanxooni seytaanu min marid sëñ duwaa mas naa wax ne sant leen yàlla ñu sant ko mu ne xam ngeen lu tax may leen sant leen yàlla ñu ne ko déedéet mu ne dangeen maa am te xamu leen ma li tax ngeen am ma mooy lu ne bu wootee la ca bokk doo ngay wuyu di kon masna bind bam sa sin bam sa sin ñu ko bindé ba nopi di ci jundju le ko ci yalla may té moy budé baagi moy né suñu borom sétal nako ci hisab bi aduna ak hisab bi alakhirah itam may nako itam ak ngor go xamné dotu rek koti ba mukk mandal nako itam te dotu marati ba faaw may na ko muy sant te dootul jàmbati jàmbati ba faaw mas bind itam attaaya di wax di ko ji suñ borom may nga alif gi suñ borom demal na ci moom mboolem lu yàq-yàq ak luy gàkk ak luy nax-nax jëme ko ci keneen may na ko itam tawfeex may ko barke may ko ak njàppandal gu ànd ak góolu sëriñ Tuubaa mas naa laaj sëriñ Basiiru doomam ne ko sa kër nijaay ca kokki ku fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sàng sàng ko jullee ko ñaanal ko yàlla mu jéggal ko mu ne ko fii kuy faatu dañ lay ta- tàbbalaaj na sëriñ <laughs> Tuubaa lahu laaw maxtaaralahu mas naa jox ay nit aw ñam ñu cey jëfëniku am ku wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam bo xal dara sa njàmm ngi non kon na dal naa mag bi mom yu top ay mbiram du jeex mukk moom léppam la yàlla def na ko muy kiimaan itam xam naa maa yaakaar ne dañuy delluwaat ci laaj yi tuuti rek su ndax mën naa gën a guddal waxtaan yi subhaana rabbika rabbil suñ borom moo ko fi yabaloon mu doon mu'jiza goo xam ne ña jiitu woon kenn mësta gis ku mel ni moom te ñuy ñëw itam kenn du ci masa gis ku ku mel ni moom ndax loolu lépp moo ko bind lim liggéeyal yonent bi itam kenn mësu ko liggéeyal te kenn doolu ko liggéeyal ndax moom loolu moo ko nee na man sanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada nafaytu sannahu bi anniyal xadim bi ma wana an mislihi képp koo xam daa jàpp nga ne da ñëwaat ci jamono liggéeyal bi ñi ma ko bégloo nee na man maa ngi teel a dàq sa njort ci ne nee ma ko liggéeyal daal kenn dootu ko mën a liggéeyal noonu mu doon koo xam ne yàlla rek ko xam ndax daana wax ni ñett rek ñoo ma xam yàlla mi tax yàlla mi ma bind ak yonent bi mi tax ñu bind ma ak kuñ dugal ci bàmmeel ne ñett ñooñu ñoo ko xam am na ku ma sa ñëw itam ci biir kër bi wax nañ ne bi mu duggee ci budd bi rek daa dégg sëñ bi di di wax te fa mu toll wërta mën a dégg waxi sëñ bi ndax mi ngi mel ni fii ñu toll rek ak ku toll fële ca boori garage ba xam du dégg sëñ bi sëñ bi mu mel ne dañ koo dëpp ci gémmiñam mu ne cëy kii de kenn xamul lu doon ne wax loolu ci am xelam nga xam ne soo moom waxu ko ci làmmiñam ci xelam rek la ko wax ne bi mu agsee toog fekk sëñ bi di waxtaan keneen ba mu waxee ba wax ja daanu mu ne ko cëy la ma doon cëy la ma doon mu sa mbaaraam bii de bu ko jëloon teg ko ci gën ngaa sori penk xotti ko ba mu ci soow de du tax nga xam la ma doon cëy la ma doon kon nag moom mel na ne boppam ci boppam moom ci boppam sax li ko yàlla def mel na ne moom yéem na ko kon nag yaakaar naa dañuy sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di sant sëriñ alxaaji Mbakke mi nga xam ne moo doon def conférence bi waxtaan wi te muy waxtaan wu am solo woo xam ni xëy na fi mu jeexee sax nit ñi xaare wuñ ko woon foofu xam naa liñ koy faje rek mooy laaj yi moom na bari maanaam eh, ku am laaj rek na ko indi ndax mbi wax wax ji mën a gën a continuer xam naa man li may def seetlu yi may def xam naa du gudd mooy ni rek sëñ bi ni mu waxee Serigne Touba wane na bu baax yéemeeg Serigne Touba Serigne Touba ki gën a yéeme ci àdduna bi ma nga ne moom mooy moom ujubatan minhu li kulli l kawni jooju mu wax ci mu nooru daare ni mën nga ne moom Serigne Touba noonu la demee woon ku yéeme la koo xam ne boo jàngatee ak dundam di nga xam ne lu ko gën a yéeme bariwul man damay wax rek ni sëriñ bi li gën a yéeme ci moom ci man li ma seetlu te ànd ko yenn bindkat yi mooy eh, namatu jaamu yàlla maanaam dox eh, modd bi mu jëloon di ko jaamoo yàlla muy modd bu jafe-jafe-jafe ndax moom mësta tàggoo li ko ak njàpp mësta maanaam dog ci lu dul bis yi nga xam dañ ci aaye ko ci woor mësta julli ci lu dul jàkk xam nga loolu lu jafe-jafe la euh, loolu xeetu jaamu yàlla googu moo gën a euh, jafe fu jàppam njàppam toje rek da daal di jàppaat mësta tàggali ko njàpp loolu lu ak it mësta tàggali ko koor mësta tàggali ko itam ak jullit mbooloo lu dul ci jamono yim nekkee ci eh, tukki bi loolu lu jafe-jafe jafe la li ci gën a yem it na ci li ci sëñ alxaaji junju muy gis gi mu daa gis yonente bi taxoo gi mu taxoo di gis yonente bi jamono junne muy jàkkaarloog moom loolu lu ko gën a yéeme amul ndax yeneen gëstukat yi nga xam ñoo gëstu ci ni ñuy war a jaamoo yàlla ñoo ñu gis nga dañuy net li diw moo ko net li diw net li di waaye kii moom day jàkkaarloo yonente bi sallallahu alayhi di ko gis eh, kooku lu yéeme yéeme la ci sëriñ ko gën a yéeme mën nga ne amul taxoo gis yonente bi loo wax rek bu ne yonente bi nee na ma nangam léegi <laughs> loolu sëñ bi am na lu ci net li te xëy na dina gën a bari eh, ma wax itam ni bu ñu seetloo gis nañ ni jamonoom it xëy na léegi sii la ñu dem ba Serigne Touba ay nit di ko dégg ci gis gi ñu gis ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo di ci am sikk sàkk waaye ci jamono moom kenn mësu koo dégg te ñëwoo jébbal ko sa bopp boroom xam-xam yi ñu xamoon ci jamonoom yépp dañoo àndoon ak moom ñëw jébbal ko seen bopp am na benn naaru murtani boo xam ne da ci wax bayit woo xam ni wu wu bayit wu ma dugg la man dama koy faral di wax lu bare bari dafa wax ne walamma laqiitu cheikha ahmada burhatan nafattu yamini an xubaari lmashaayixi ne bi ma tasee see ahmadou bamba as ndiir su gàtt rek ci laa seppi saay loxo ci mboolem sëriñ si ci des da ko jëbal saa bopp kon loolu buñ ko seetloo mas na ci wax lu bare bari xam na ni ma ko waxee léegi rek dañuy fexe ba laaj yi bari ndax sëñ bi mën a gën a guddal ci ma continuer bu ñu seetloo itam ci sëriñ Touba mën nañu wax ni ku mel ne Cheikh Sidiya baaba moom bu ñu koy nettali ci histoire murid nii nettali bi day gaaw waaye boo xamee kan mooy Cheikh Sidiya Baba lim daa wax ci Serigne Touba di nga xam moom it yéem ak Serigne Touba Cheikh Sidiya Baba danaa sikkal sëriñ si maanaam da daa wax ne sëriñ si ñoom dañuy woote dañ ku ne ku jug rek ne sëriñ la te ñoom xamuñu lu bari. دعواني الشيخ في عرف الزمان الحاضر ليس كما تسمع في ابن العاصر نانا سيرين تي جامونو جي دا يومبو نين كو دا ديغي تي ابن عاصر مو وخنا تسحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك وانا دا نغي اندك سيرين بو خامني دا فا خام يون وي ديلا جيندي مبولم فو تجار مود لاكو مويتلو نانا لولو لغي اماتول نيت داي جوغ رك كالاو نياب سيرين لا نون لا شيخ سيدي دا وخ waaye bi mu gisee sëriñ Touba mujj ne wax naan a cheikhu ahmadu nicmatun awlaaha hadi alxalaayiqa kullaha mawlaaha ne Serigne Touba moom xéewal la rek gu yàlla jox mbindeef yi bi mu gisee sëñ bi loolu mujj di wax te gis nga ko njëkk loolu lim daa wax ci sëriñ si mu xamoon kon loolu lépp ay melo la ci yéemeeg sëriñ Touba muy loo xam ni eh, ba tey nekk gi mu nekk di xaadimu rasul nga xam ne Eh, danaa wax di ñaan suñu borom àggale ko ci darajay anas ibnu malik ba mu yàgg muy wax ne sirtu misla anas ba mu yàgg muy wax ne jaawastu wa fi matxihi jaawastu kaaban wa xasaana nga xam ne mujj na weesu eh, gaa yooyu yépp loolu it nekk gi mu nekk di liggéeyal yonente bi te weesu ci ku ko daa liggéeyal loolu lu yéeme la ci moom ak it tur wi ni mu taqoog turu yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu ko tudde rek rasul da ci am xaadimul rasul xadimul mustafa fu ñu ko tuddee rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam àgg ci loolu nag lu rëy la ndax bu ñu seetloo am na benn waykat bu xorom boo xam ne daa wax ne sha'irul amiri wa ma bil qalili dal laqabu ne man maay waykatub amir bi te loolu nag du du du du turu tuuti daal ndax nekk di waykatu buur bi loolu lu rëy la da ko daa demoo kon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii ngeen ji mindeef Serigne Touba liggéeyal ko ba àgg ci fuñ ko tuddee rek tudd yonente bi loolu moom lu rëy la ay melo yu bare bare mas na ko cee lim waye damay gàttal fofu rek jox serigne bi ñu agalé ci laaj yi nga xamni mo fi rot melni ne bari na budé nak serigne Touba ndax kilifa yi kon dama bëggoon a gàttal waaye ñu ne naa gën a continuer wàll gi wàllu sëñ Alaji la moom moo ko gën a xam ak kilifa yi toog eh, waaye maa ngi jégalu ci su ma defee ay njuumte suñu seetloo itam Serigne Touba kon wàll yi ñu mën a waxee moom ak yéemeem bari na eh, noonu mu ko waxee ci ak nim doo jaamoo yàlla ak eh, ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ko daroon te ñu doon ñoo xam ni ah, waaw bismillah kon xam naa damay bàyyi rek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 di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu ko defal nga am ko yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp di leen jaare ci weeru koor wu tedd wi di weeru njëggal di weeru yërmande di weeru goreel jaam ñi sawara yal na yàlla nangul nu sunuy jaamu yàlla jéggal nu sunuy bàkkaar te xiir nu ci nu jaamu ko te mu nangul nu jaamu bi te suñ kilifa yi diine yi yàlla na leen fi yàlla yàggal nu yàgg noo digal nu yàgg jëfe ndigal sëriñ alxaaji Mbàkke ñi ngi lay sant bu baax ci turu alwafa bi xuquqil imaan ci bi ñu soxlaa nga waxtaanal ñu nga defal ñu ci ak jàppandal bu baax ñëw defal ñu waxtaan wi li nga ñuy waxtaanal it loo am solo la loo xam ni wax dëgg yàlla mbooloo mépp waxtaan wi ñor na leen tax na laaj yi bari na lool ndax sëriñ Tuubaa kenn ku ne xam na ni kiimaan la baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil aalamina aaya kooku sëñ tubaa bind kon sëriñ tubaa kéemaan la gu wér goo xamante ni euh, lu yéeme yéeme la ndax ci ay mbindam rek boo xoolee danga gis sunu borom subhaanahu wa taala mu ci wax ay yu ko sunu borom defal yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit mën na cee yéemu lool ndax bokk na ci yooye ilayya xaadallahu ma lam ni ولا يكون ابدا لممكن بوكنا تي يوي بوكنا تي يوي دم حياتي لحياه الله الله داخلا جنان الله يوي بوكنا تي بوكنا تي تا موي سعادتي بخير محو كتبت وكوني العبد القديم قد ثبت يوي ييب دي اي كيمان يو خامتاني واخ دغ يالا كوكو جانغ كوني داغا خامني سيرن توبا كو فاس دال لا كين لا كو خامتاني am ci sunu borom lu ci nit mësta am te nit dootu ko am loolu nag mi ngi ko jaare rek ci sayyidul awwalin wal axirin muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee ni raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraar mel ni kon ba gaay wut yoon wa moom de suñu borom daf koo tegtal mu jaar ca yoon wa na mu gën a gaawee te gën a gàtte ndax tawaytu tariqa al qawmi waxtamtidaihi la wax kon lool lépp di ay kiimaan yoo xamante ni kenn umplewu ko waaw waaw kon bismillah ñu dugg ci laaj yi ngir man koo jotalal bu baax ndax laaj yi bari na lool wax dëgg yàlla mbokk yi dégg nañu waxtaan wi bu baax mbokk mi jëkk a laaj nee na day laaj ku bëgg egg ci yàlla gan xasida lay jàng moo gën a gaaw ngir yegg ci yàlla gan xasida moo gën a gaaw ngir yeggale nit ci yàlla moom la mbokk mi moom di laaj bismillah kooku li muy laaj yaakaar naa mel na ne bu dégluwaatee waxtaan wi mel na ñëw na ci biir xam naa da koo teewlu waaye wax nañ ci biir ne aw bayit woo xam ne sëñ bi nee na tuwasilu aqlaami ilallaahi xaabidan bilaa xalwatin wallaahu abqa kama axna nee na sama mbind day àggale ki nga xam ne day jaamu yàlla ci yàlla da koy àggale ci yàlla ci lu muy dugg xalwa sax ndax suñ mag bi mas naa wax ne ñiy dugg xalwa xanaa dañoo xamul muxaddamatul xidma ne loolu de wax nañ wax mas na ko xanaa dugg xalwa dañoo xamul muxaddamatul xidma kon mel na ne suñ tubaa ay lépp day àggale ci yàlla ndax àgg ci yàlla moom mooy dem ba say yëngutoog say wax ak say jëf sam xel lépp nekk ci yàlla looy def di ci bàyyi xel yàlla looy wax di ci bàyyi xel yàlla loolee nag bu xasee ba am ci ab jaam àgg na ci yàlla saa su teqali kook loolee na xam ne àggatut ci yàlla loolee nag mbindam mi moom lay def ndax ne xulubu sawit imaani lillahi tansani bi xatti wa bi lil huda saara masroha nee na sa mboolem ñi nga xamee ne ñu gëm yàlla lañ bu ñuy jàng sa mbind seeni xol day dellu ci yàlla dellu googu muy dellu ci yàlla nag ba ca saxee dàkk ba ji loolu lañuy wax ak àgg ci yàlla loolu nag mel na ni mbindam yépp moo koy def jërëjëf mbokk moomu kon dégg na bu baax li ko sëriñ bi tontu te mooy sëriñ bi dafa wax ni ñiy dugg xalwa dañaa xanaa dañoo xamul mu ak muxaddimatul ma kon loolu leer na bu baax a baax kii mu ni daf doon laaj ba xam dafa bëgg nga digal ko gan xasida ngir mu di ko bari la jàng ngir mu am saadatu daaree ni xasida goo xam ne boo ko bari lee jàng dana ko may saadatu daaree ni waaw saadatu daaree ni mooy texe ñaari kër yi mooy am dund bu neex fii ci àdduna bu ëllëgee nga tàbbi àjjana loolu nag mel na ne xasida yi am na goo xam ne moom tudd na ko ci boo demee ci tërjumaan yi mu waay مجدد من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وفرحوا بهذه المنصومة في كل وقت وحين قبل من يقرأها سعادة الدارين لولا فهم بكو جانا نمكم أي سعادة الدارين كون ملنا بكو تخوضي ملنا ملنا يعلم أنكم أي سعادة الدارين دونتي يبزخ أمنا جدا kon mbokk momu dégg na li serigne bi wax ci xasiid ak mawaahibu na dem ci tarjuman ja xol ko bu baakha bax ki neena mom limay laaj moy way wi serigne bi wax ni ataytani aljamia duna salabi wa li taquuda sula waqta talabi mu ne daal bëggoon na fofu ñu dolel ko fi ay leral bu baakha bax baax waaw itam buñu ñu seetloo ndax bay bi mom mëno jeg jeg-jeg rek xol ko daal koy mëna a firi ngay jëkk xol la ko jitu am bay li fi wax jooju maa ngi ko tàmbale ja sunil xadisa te sunil xadisa wal furuha kal kitaab xanit la siinam tanahu minal mataab raafihu birfahil kitaaba wal furuh mahal ahadisi sahahi saburo daani axtaytanil jamiha doona salabi wali taqudu suhla waxta talabi te suñ borom na ñoŋal te aar addisi yonente bi ci man te yëkkatee ko ci man ànd ko ginnaaw jox nga ma mboolem addis yonente bi ak bàngaas yi ci bàngaasoo itam kon kooku leer na bu baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafay ñaan nga leeralal ko teggiin yi ñuy jànge xasida maanaam jàngiinu jàng xasida teggiin yi nga xamante ni comme ni jàng alxuraan amee ay teggiin maanaam teggiin yi jàng xasida ku jàng xasida yan teggiin lañu war a làmbool ngir jàng xasida loolu moom laaj bu am solo ndax moom day mel ne ñaare buñ waxtaanee ci xasida rek ñu bari buñ jógee lañuy ñuy daal def rek ñi ko ñi ci nekkutoon mooy daal koy song rek yaakaar ne moom dañu ci daal di jëmee nu leen neex lépp mbir mu am na ay teggin rawante nag sax loo xam ne ka def dafa sell xam jóge ci ku sell moom ki jëfandikoo war naa sell lool ndax sëñ ba bind da cee amoon pëste bu mat sëkk ànd ak am xelam ay cëram dara du ci jëngu jëm ci àdduna yow mi nga xam ne yaa koy jàng nag saa soo jëmee ci daray àdduna wala ngay wax leneen lu bokkut ak loola li ci ëpp da lay jural ay jafe-jafe ji jafe lool man sama bopp mii rek laa xam ne ñaar rek mooy jàng di waxtaan ak yu mel noonu li ci ëpp rek naanaka suñu mag mas naa wax ne bàyyi leen ñuy jàng sama xasida yi ngeen di waxtaan ndax buñ koy jàng ni waa suuf di dégloo ni la waa kaw di dégloo te waa kaw ku leen nar a tàngal dañ lay fob sànni jàng ko te loolu waxut sax ki koy jàng maanaam fi yow waxut nga di jàng di wax waaye fi nga toog rek ñu fay jàng ngay ngay waxtaan rek loolu di bu rëy rëy la kon kiy jàng xasida teggin yi nga xam ne moo gën a mat a sàmmanteel ginnaaw bu jubloo xibla te yoon laa bokk xabas ak laa bokk xadas muy booree sangu farata sangu farata booree jàpp mu jàpp toog jublu xibla na xawa a génne xelam itam tuuti ci àdduna waxtaan mu waxaale yu ko jàng xasida yi waxtaan moom dara ba gënu koo bon te mel na ne ñu bare bare bu ñu ko sàmmante loolu mooy teggin bi gën te war koo jiital saa sooy jàng daal nga wut barab boo xam ne da toog jàng la ngay jàng mu jeex nga dem di ci leen waaye di ko rax ak di ko boole moom teggini alxuraan rek mooy ay tegginam boo demee ci Masaalikul Jinaan sëñ bi indi na teggini alxuraan yooyu ak toogin yeeg ni ñu koy defee yooyu yëpp noo ñoo bokk waxtu yi ci man muy guddi jërëjëf loolu leer bu baax sëriñ bii mu ne day laaj gan xasida mooy goo xam ne ku ko jàng mel nga ni ku jàng xasida yëpp dañuy wax ne am na xasida ko ku ko jàng mel nga ni ku jàng xasida yi sëñ bi bind yëpp muy laaj googu xasida gan la loolu de laaj bu am solo la laaj na lu mat a laaj loolu mu laaj it am na waaye mooy xasida bu mu jël rek gépp xasida bu mu jël te taxoo ko mel na ni mi ngi jàngale sëñ bi bind lépp ndax dañu ne ilsam baaban tuftax lakkal ab baab ñoom boo taxoo benn bunt ñu tijji la bunt yëpp kon na jël génn te taxoo ko te sàmmoo teggi nii bu yàggee yëpp dana la fekk si waaw ah, ñun sëñ bi mas na maa toog sëñ saa yi nañu xasida yii de dee leen ko jàng muy nooru daaree ni ak jaalibatul maraaxib ak matlabul fawzayni ak kansul muhtajin ndax dañuy ga nit ci bëgg yàlla ak jaamu yàlla jërëjëf kii mu ne dafa bëgg nga dimbali ko waxal ko xasida yi nga xam ni day fóot ab xol ba mu set wecc waaw mu ni daal dafa bëgg nga dimbali ko ci dafa bëgg nga waaw waaw mu ni def mu ni dafa bëgg nga dimbali ko wax ko xasida yi nga xamante ni day fóot xol ba mu set wecc loolu daal la bëggoon ku ko ci dimbali xasida koo xam ne bu taxoo moom rek jombul dana fóot ab xolam ba mu set. laaj na ndax moom war naa seet mu sete ci mboolem bàkkaar yi ak ayib yi te bu setee itam mu fexe ba bañ a taqaar bu dee xasida yi noonu ñu ko waxoon rek yépp ci yàlla lay jëm jëmale nit ñi yàlla nag bala nga ca àgg faw nga set bu dee moom lépp goo ci taxool li muy njëkk a def ci yow mooy génne lépp lu bon ci yow dugal lépp lu baax ci yow ñoom ñépp nag ñoo ci yem ndax moom la jëmmam ja daa def loolu la mbind mi def muy tarbiya tarbiya nag mooy loolu weesu taxliya ak taxliya loolu la ñu saa su rekki koo ci mboolem ayib yeeg bàkkaar yi rek lu baax yépp day ñëw donte sax xëccoo ko nga xasida nag noonu rek la ci rek ak saxal mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziarale day laaj mu ni jaalibatul maraxib mu ni day laaj ban jamono la ko sëñ bi taalif te dafa dégg ñu ni xasida la goog day dofloo muy laaj ndax loolu wér na wala jaalibatu maraaxib moom sëñ bu mag bi mi ngi ko taalif ci géej gi bi mu nekkee ci géej gi ci la ko waaye sëñ bi li tax ay mbindam di naqaree jekki-jekki rek wax ne nangam dana bind di bindaat day bind ak bi bindaat ko ndax wax nañ ne gànnaar la ko la ko defaraate bi mu ko defaraatee itam wax nañ ne kam ko jox dane ko mu jëm seeg moom fii ci réew mi dane ko ba ba ngay àgg armeel yoo fi romb kuñ ci noonu bugal danañ teggi bugal ma ba keroog ngay àgg li fee waaw ba waxtu wee nga fi noonu awee ca déwén sa bu fa ku mel ne yow awaatu li nga wax ci dofloog yi itam am na sama mbokk moo xam nee na mas naa ñëw ci suñu saal ne ko daa am yu may dégg ci maraaxib jaalimatu maraaxib suñu bi ne ko waaw man de maa ngi koy dégg manit toog ba ci àgg mu ne ko waaye gëm ma ko de kon dofloo ko moom bu ñuy wax la waaye dofloo gi itam lu mën a nekk la nga xam nga léegi leer moom buy dugg bu fekkee dafa ñëw te fekk loola taq mu duggee ci ak doole faw jëmmi doomu aadama ba day soppiku soppiku ko nag la ñuy tuddee ak dof waaye xëy na mën naa bañ a nekk lu sax itam ndax bu fekkee nit ki dafa taxoon répp jekki-jekki rek loolee di dugg ci moom safaanoo ko safaanoo lam la muy fekk ca moom mooy waral ñaare du mën a yor melo doomu aadama waaye bu dee ba saxaatit mën naa nekk ndax mi boo jëloon fi naan ak diw sansal ko ba mu sans boo jëlee am ndox sotti ko ci la dara dangay gis loola sedd diw gi moom dafa tàng jër moom da ngay gis mu ne cas noonu mu noonu muy def yëngatu yooyu loolu mooy war la muy fekk si ak moom dañoo safaanoo muy waral yëngatu yooyu ñu tudde ak dof jërëjëf kii nee daf doon ñaan nga wax ko xasida goo xam ne day ñoo di wërsëg nee na daal moom loolu la bëgg xasida koo xam ne day dolli wërsëg bu baax nga baaxe ko ko te baaxee ma ko man mii nag. loolu de moom bari na lool xam nga su borom moom dañuy def bind wërsëg wërsëg moo ko bind ci jaam yëpp waaye dina ko dolli di ko wàññi itam sëñ nag wax naa gis naa ci mbindam mu ne suñu borom jaam yi mu ngi leen di joxe wërsëg ci mbindam yi waaye nag waxul ne menn mbind kon dañ ciy dégg ne mbindam yi boo ci jàng rek mën nga am la nga bëgg ndax dane yuxti ilaahuka fii xattil wara minanan salla alayka lasi yuxni xanit talabi mboolem mbindeef yi suñ borom day leen jox ay xéwal ci sama mbind mbind ma nag ràññeelewu ci benn mel ni kon boo ci jàng rek naa noonu ko wala tox ni biyaa xanit tasabur jërëjëf sëñ bi foofu dina am laaj bu ma fi jaarale boo xam ne bëggoon naa ko moo fi indi tuuti ay leeral xasida gu ne wax ahamun saqaqun alahun yasun ndax sëriñ bi moo ko bind wala bokku ci ay xasida moom xasida boobu moom am na am na ñuy wax ne genn la ci sëñ bi bind ndax da ci am koo xam ne dama teewlootul fu mu tàmbalee waaye am na ci koo am daal moom wér na ne moom sëñ bi moo ko bind yee ca des nag moom ñu ci bari amuñu ci ak ndogu ci ne sëriñ bi moo ko bind moom defe naa boobu ci la nekke allahu rabbi mumtiru sama ahmaduhu dahra ila alfana huwa alkarimu alwahibu almannan huwa almuinu lilwara alhannan muhayminu almusawiru alqallaq iftah li alarzaq ya arzaq sahil lana alasira yassir almunaminit fa ana alfaqra bi walana am ah ah waaw mbokk bi muy laaj mu ni nga waxal nu dara ci li sëriñ Touba waxoon ak njabootam muy ay doomam ak ay sëtam maanaam li nga xam ne da waxoon ci ay doomam ak li nga xam ne da waxoon ci ay sëtam. waaw loolu moom yaakaar naa duñ ci sori ndax suñ mag moom daal ñëppay ak njabootam ñëppay ay doomam. dafa nekkoon koo xam ne dafa jëloon xeetu yonent bépp njabootu leen ndax mu yàggu nag dama mu may waxtaan naa muy wax naa dafa am ku nekkoon isl labraar de bu ko kenoon defoon kudut suñ mag bi day ci njabootam rek la ko yemale waaye kenaan du ko gis ma ne ko lool loolu la sëñ bi def di mu ne ah nu mu ko def ma xeetu yonent bi mooy ak njabootam sëñ bi daal njaboot yëpp la moom yëpp la yemale lam daa digal ay doom la daa digal lam daa wax ay njabootam la daa wax ñëpp lam daa defal ay jabootam lay defal ñëpp moom daal mel na ne nangu woon ne yàllaa ko def muy kiimaan ba ràññee la wut kenn ndax lim daa séddale itam kemtulaay da nga ko sàkkoo rek naa la koy joxe daa nam daa wax ay doom lépp mbokk mi mu ni ci biir jaalibatul maraaxi daf cee seetlu wenn bayit woo xam ni ñii nee nañu ci la yéene ji maanaam ci la yéene daje wala ci lay ci lay nekk xanaa wamxu shaqaawata naxat ni yaa alim waj al fuaadiya madinata ulum waaw waaw loolu moom bay loolu am na ak wuute ñii nañ ci la ñii nañ bokk ci waaye nañ jàpp ne li gën a wér daal moom mooy ci la ndax man ñooy faral di wax rek mooy yokk ak wàññi saa suñ amee jàppal yokk ga rek ndax mooy li gën a wér moom te boo seetee wax ñi itam te it mbind yi askanale sëñ Modou Moustapha mi bi ñu bi ñu mujj génne nii ci ren te mool ko ren am na ca ñun ma ngi ci biir te lu ci mën di xewet moom jàpp waaj yokk nga moo gën a wóor wàññi nga ndax mbokk mi nee ginnaaw bi mu la nuyoo sant la gërëm la rafet lu waxtaan wi lool nee na dafa gis ci biir xësidee sëñ bi sëñ bi di wax baatub laj muy ab tënk ak baatub ka muy ab tënk mu bëggoon ñaari tënk yooyu daal ku ci dollil ay leeral mooy laajam bu njëkk. loolu moom lu bari ay wuute la lañ moom am nañu naa mooy fanweeri at ak ñett yi mu nekk tubaab yi ndax bu ma sa di assasin di tàmbalee jëy sasin ba ni mu làqoo muy muy xam eh, sasin muy wam sasin boo seetee diggante boobu fanweeri at ak ñett la lay jox. xam ne ci loxoy tubaab bi la nekk ñoom ñoo koy jëmale fu ne neex ah, ba mooy am na ñu mooy laaj su ko defee kaxa moom dañ ci dafa am yoo xam ne da ko jaayante jaayanteeg suñu borom nee nañ mooy lu mel ne du toog te jubluwut penk du wéeru sëñ mag bi daa du wéeru du waxtaanu waxtaanu àdduna du ree xaqtaay du jëfandikoo yu bare bare ak yoo xam du dox di yëngal ay loxoom am nañu naa yooyee moom la ñuy topp noonu di ko topp ba ak si ci xam na yeneen nett liñ ciy déggit waaye yooyu yëpp daal moom moo koy xam ndax xam nga da am yoo xam da ko jubluwuta eh, feeñal moom waaw nit ak juróom ñett ci ay mubaaxaat noonu la ko sëriñ Moussa Ka indee wax ni moom la sëñ bi jaay bàq na ci sax ba ni ba ci naan suukarus nasaraan si sax bokk na ca yooye nga xamante ni daf koo jàntal ñaareel ba it mu ni eh, nan la ñuy eh, ràññee xasaayid nga xamante ni sëriñ bi woy na ko ci géej gi ak yi nga xam ne way na ko njëkk muy dem ci géej gi nan lañ leen mën a xàmmee bismillahi rahmaani rahim loolu moom day mel ne lu yomba xàmmee la xasida yi nga xam ne sëñ bi def na ko ci biir géej gi ak yi nga xam ne def na ko ci ginnaaw géej gi bu fekkee ku dégg arab la wax mun nag bu fekkee nag déggul arab moom ñaawe loolu dana ko waaye bu fekkee guddi garam bi suñ moom li ci ëpp ñaare du tàmbali ak xasida da mu jeex te yow mi jàng xamu ne ci bi mu jógee ci géej gi la ko waaye wala ci biir géej gi ndax ci biir géej gi rek ci ci biir xasida géej gi moom wax goo ci gis rek daa nga gis luy tegtale ne maanaam mi ngi waxam teeg yaafari wala boo demee ci wala xadd karam na mu gis day xii asil xaajilan bil ma mahmadadin xataa uximani ji nga gis ne kon kii mi ngi ci ay xat-xat naa ko yàlla nga dindi samay xat-xat ba ñëwee ci euh, fii ci xasida yi nga xam ne moom ginnaaw lépp ak sant lay doon at laxtani wasaxtani fa sukkuri